Mesdames et messieurs, chers entonneurs de tchédakar.com, nous sommes ici dans le cadre du Grand Bagal de Touba qui doit se tenir demain. nous sommes ici dans le cadre de reportage à Darou Rahman et dans un bâtiment très historique, chargé d'histoire. Et nous avons fêté l'histoire de ce bâtiment. Et nous avons rencontré ici des autorités, religieuses de ce quartier et euh, à l'image de Sering Khadim Rasoul va nous expliquer comment tout, toute l'histoire de ce bâtiment a été, a été conçue. Cela, Sering Khadim bonjour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ñu ngi sant yàlla ci yonent bu tedd bi sante suñu Sëriñ Khadim Rasul ci maanaam li nga nuyu sëñ Sidi Moxtaar moom tamit mooy suñu sëñ Touba ndax moom la ñu tombal di euh, bëgg lool ci bisu màggal 2017 bi ñu jëm ndax euh, suba mooy maanaam 18 safar mu correspondre ak euh, li nga xamante ni moo taxoon maanaam sëñ Touba egg si pour liggéeyal maanaam suñ borom ndax bala may wax ci Daaru Rahman dañuy wax maanaam ci li nga xamante ni mooy màggal gi nga xamante ni yàlla moo ko jox ñun waa Sénégal. ndax amul fenn ci àdduna foo xamante ni maanaam danañ fa liggéeyal yàlla ci beneen fànn bu dul fànn bi nga xamante ni maanaam suñ tuwaa xadimu rasul yàlla daf ñu ko baaxee ñun waa Sénégal mu bëggoon képp koo xamante ni maanaam yaa ngi yeewoo Sénégal nekk doomu Sénégal nga xam ne lii yëfu diine la bala muy nekk yëfu l'islam ndax euh, diine yëpp maanaam dañ ci xajoo ndax sëñ Tuubaa bu mu ñëwee dafa ni yaa ahlal bahri yaa ahlal bahri doodul bëri bëri taxa kon yëpp la sëñ Tuubaa woo sëñ Tuubaa maanaam liggéey bi nga xamante ni mooy liggéeyu yàlla génnewu ci kenn génnewu ci tijaan bi génnewu ci xaadir bi génnewu ci salsalu génnewu ci sax maanaam taraxa génnewu ci ñun yëpp la woo képp koo xamante ni maanaam da ngaa gën yàlla nam ma egg ci yàlla yow sëñ Tuubaa woo na la pour ñu dem moo tax euh, dafa nekk mission boo xamante ni yàlla moo ko baaxee waa Sénégal comme mission yonent bi salaatu alayhi wa salaam ni ko yàlla baaxee maanaam waa Arabie Saoudite mu fees ba wër àdduna yi ngi Sëñ Tuubaa yi tamit maanaam noonu la ndax euh, yàlla dafay toog maanaam saa soo xamante ni maanaam yàlla mooy gën jiwaat nit maanaam ci yàlla judduwaat euh, maanaam tey nag ñun mission boobu yàlla daf ko jox sëñ Touba sëñ Touba taamu ñu ñun waa Sénégal ñu pour ñu def maanaam mission boobu kon képp koo xamante ni euh, maanaam euh, am nga loo nam lu jëm ci yàlla xamal ni yow ab murit nga murit nekkul ki nga xamante ni rek mooy spécificité ñëw taxaw ni aslamtu nafsi ndax sëriñ bi ci boppam dafa commencé Eh, di jàngale alxuraan di jàngale diine alxuraan di jàngale li nga xamante ni maanaam lan la fi fekkoon mais di heure yàlla jotee bi nga xamante ni suñu borom da wax maanaam mu woote eh, ci la woote pour yóbbu nit ñi fa nga xamante ni maanaam fa lañ jëm muy yàlla. Eh, ka nga xamante ni maanaam mu ngi bokk ci ahlul kitaab nekk maanaam ab ab catholique nekk ab chrétien boo seetloo. comme ni ma koy waxee li yàlla wax maanaam ci biir alxuraan ni lépp maanaam ma nga aju ci fekkoon mu nekk baat kun nekkal boo jëlee bibi bi bibi bi aussi dans la jeunesse maanaam lan lay wax au commencement était la parole la parole était avec Dieu la parole était Dieu la parole s'est faite chère Emmanuel Dieu parmi nous boo xoolee loolu tey fi mu nekk nii ak nga mën analyser de manière rationnelle sereine et calme da nga xam ne maanaam c'est une continuité dans la divinité loolu nag la sëñ Tuubaa woote moo tax tey fi mu nekk nii bu ma gisee kenn taxaw man ab catholique sax maanaam boo taxawee ndax da ngaa nam ma dem ci yàlla ñu nam ma dem ci yàlla ni sëriñ Tuubaa woo mooy ñu nam ma dund ci dëgg bi nga xamante ni moo leen di eggale maanaam ci wàllu voie yi nag maanaam bëri na euh, ndax di fi di fi Cheikh Abdou Khadir Jilani ñëw Cheikh Ahmed Tidiane ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni maanaam euh, xam na leen ràññee na leen ñoom ñëpp maanaam ci yoon lañ nekkoon waaye yoon bi nga xamante ni nag mooy satelliser ku nga jëm egg ci yàlla ci mission bi nga xamante ni ci Tuubaa yàlla ko ko ñëpp ci lañ bokk. donc def nañ loolu dama bëgg maanaam ñun waa Sénégal ñun waa Afrique ñun waa adduna bi ñu xam ni sëñ Tuubaa li tax mu ñëw. pour murid yi nga xamante ni dañoo yaakaar ni murid ga mooy aslamtu nafsi murid mooy képp ku na ma egg ci yàlla booy l'aspirant ñooñu la seen tubaaboo kon ñëpp ñoo ngi ci biir dugg na ko maanaam ñenn ñi di waxee man murid laa yow nii nga ainsi de suite boo nekkee rek xam ne maanaam kii yàlla ci biir boo nekkee murid rek maanaam gëm gëm yàlla ak moom yéen a bokk ci biir moom ngeen tax fi mu nekk nii dama bëgg nit ñi xam li nga xamante ni maanaam dans Jean Jean cinq verset seize à vingt huit loolu aussi damay doon di nga xam ni li ma nekkee murid li ma nekk jullit noonu laa war a gëstoo aussi maanaam jullit bi euh, la Bible dit Tout ce que je vous ai dit, vous n'avez pas compris. Il est l'heure que je m'en aille à la droite du Père pour que mon Père, l'Esprit Saint, vous envoie l'Esprit de vérité et que l'Esprit de vérité vous enseignera tout ce qu'il aura entendu, vous glorifiera au Parlement de moi. Le but de l'islam. Le seront égarés, sauf ceux qui connaissent, qui pratiquent et qui posent dans la maison. Même ceux qui connaissent et qui pratiquent et qui posent dans la raison seront égarés. Sauf ceux qui, connaissent, qui pratiquent et qui posent le parti dans une raison sincère. Même ceux qui connaissent, qui pratiquent et qui posent des pratique dans une raison sincère seront égarés. Sauf ceux qui connaissent, qui pratiquent et qui posent le pratique dans une raison sincère. ko mu ni même ñi xam di jëf mënoon a yàqule ba mu des ñi xam di jëf teg seen tànk ci dëgg mu ni même ñi xam di jëf teg seen tànk ci dëgg mën na noo yàqule ba mu des ñi xam di jëf teg seen tànk ci dëgg bu ànd ak sell ñu yaakaar fa lay yem mu ni même ñi xam di jëf teg seen tànk ci dëgg bu ànd ak sell mën na noo moom la suñu xaar bu jeex ak ci biir boobu ak ca ñu xam il ñu jàng il ñu orienté ci li nga xamante ni moo ñuy saxal ci dëgg saxal ci dëgg nag loolu képp moo tax sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa egg euh, bi ci boppam bi mu ne dafa respecté maanaam fondamental yëpp ba ñëpp xam ne maanaam lii sëriñ bi maanaam euh, fulaal na ko fadaal na ko maîtrisé na ko bi heure bi jotee ni nag maanaam yàlla moo la fi indi ne dañoo ma eggale li ci yàlla mais waxul am murit képp koo a egg ci yàlla ñëwoon ma eggale la ca maanaam ci yàlla wala yoon wante ni buñ fa taxawee maanaam mënul nekk yoon bi bàyyi ilaha illallah yàlla dafa am la wa tax mu digal ñu maanaam ay wasila wasila ba wante ñun am nañ ko yàlla jëmbat ko muy suñ tuba xam ne rasul ñun ñëpp tamit ñun ñëpp war nañ a jaar ndax yàllaa ko joxoñ moo naw moo tamit wax na bëri ma boo bëri du bëri bëri sa xaay ñëpp la woo xoolul ki nga xamante ni maanaam bu ñëwee maanaam daan naan mbiru Sëñ yàlla képp moo Sénégal bi ñu ñëw ci sëñ Touba di xeeñ ci sëñ Touba di gës sëñ Touba di jaar ci xasal sëñ Touba yi moom ca boppam murit la a egg ci yàlla tijaan bi ak murit la bu bëgg a egg ci yàlla ndax sëñ Touba loolu woote ne euh, ñëpp ñi nga xamante ni dañoo bëgg a egg ci yàlla loolu tax sëñ Touba maanaam egg si am na njabootam bi fii nag tey ñoo ngi nekk Daaru Rahman euh, ci euh, lieu bi nga xamante ni doomi sëñ Touba it ñoo ci jàmm yàlla fii la sëñ Abdoulahi Mbacké borom dër bi dëkkoon ak njabootam fii la dër bi nekkoon sëñ Abdoulahi Mbacke bu dégg bi waxtee ne maanaam gane seen maanaam adduna ci la suñ tubaab bind xasida bu ñuy wax jàllal àq minal àq dëgg jóge na ci yàlla bàyyi ko ci yàlla ñëw ci man ci la am victoire kon ñun tey fi mu nekk nii fii ñu taxaw maanaam surtout ni victoire maanaam yoonu murit fii la victoire Sénégal fii la victoire Afrique fii la victoire adduna fii lay soxoo fii lay soqeekoo ci dër bi ndax fii fi ñu taxaw ñun ci dafa nekk ni seen chance immense doomi sëñ Tuubaa la ko dalee ci sëñ Modou Moustapha ba ci sëñ Mourtala

kon tey fi mu nekk nii lii ngeen xamante ne maanaam yéen am ngeen ko ci Thiès Dakar dafa war a wër adduna bi gis nga fi ñu taxaw nii sëñ Ibrahima Mbacke Blondin bi en 1957 moom la ñu décoré. le cultivateur, le meilleur cultivateur au monde. Quand nous avons fait fait Kofi, M. Lechambon, ministre d'État de l'agriculture française, nous avons fait Kofi, qui dit l'équivalent de la médaille carbone en 1957, le Sénégal, ça a eu l'indépendance. Nous avons fait Khalis Moubouri, nous avons Madame Décoration Sering, nous avons fait daf ñu nekk boo la xamante ne maanaam Pakistan mi ngi bëgg a jot ci la ñu génne maanaam alal ji pour jox ko sëñ bi sëñ bi ni déedéet maanaam kon reconnaître nañu maanaam distinction bi xool nag li nga xamante ne maanaam moo ko def sëñ bi moo njëkk moo njëkk a def pisciculture euh, ci maanaam ci Afrique maanaam mooy bay jël agriculture sëriñ bi fii lépp la fi doon soxal kon lépp am na Sénégal lépp man lañ ko fee def te am na euh, maanaam façon yar boo xamante ni sëñ bi sëñ Abdoulaye Mbacké dana ko def nit ñi du la wax yarul da lay wan nan ngay yaroo du la wax bàyyil yàq da lay wan nan ngay def ba bàyyi yàq euh, bu sànq bu sant jot te 46 bu ñu jaree fii sëriñ bi dee ànd ak taalibe yi jël bu bon def ko bi di for gerte yi ah, di ko def nii gerte googu sëriñ bi da koy bay ba naa jot mu jël benn euh, zone bay ko De ko parce que Madame dafa bëgg loola da koy jël jox ko ñi nga xamante ni ñoo ngi à la nécessité sur le plan de la référence à Madame euh, agricole li ñu am fi comme bu sukkandikoo bi xam-xam bu leer nañ danañu madame du Sénégal te tey Sénégal il faut que ñu xalaat nan la ñuy def pour am suñu souveraineté à tout point de vue souveraineté agricole souveraineté politique souveraineté par rapport à la santé sur toutes ces questions-là, c'est une poba, de la monnaie de rente, une boule, si j'arrive, de l'idem. Est-ce que tu as un hamadi ta fille, euh, qui est plus sauf un baïti, à l'époque, c'était le prince Charles, 30 000 hectares. En ce moment, rien que comme 45 000 hectares. Donc, à l'époque, une dizaine de rente, 20 qui Le eu. L'idée de cela, l'émergence, ça, n'a pas, il y du coup,